ñu dikkaat ak ci suñu émission Al Mounawir euh, tey nag ñu dikk ak yéen ci téereb Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Xaadimu Rasul ci buntu yi nga xam ne yi ñu tere ci lislaam moom la fa dajale euh, muy loo xam ne daf ko fa tënk muy loo amal njëriñ jullit bi mu xam li koy euh, lislaam tere ngir mu mën ko moytu bu baax a baax moo tax boo demee ci téeréem boobu di quratul ayni euh, page 107 sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na ñoo ngi dajale fii yu bari yoo xam ne yi ci ëpp dañ koo tere te rek xaraamal te day sabab rëccik ngëmum nit ki balaa moo faatu day tax nit ki buy faatu du dee ci lislaam te lu tax nit ki buy faatu du dee ci lislaam nag lu mat a xel la lu mat a moytu la bokk na ca yooyee Euh, bëgg ak tubaab tubaab lu maanaam bëgg jikkoy tubaab bu bon ak daganal lu xaraam lu yàlla daganal lu yàlla xaraamal ba pare nga bëgg koo daganal ak weddi warug lu war lu mel ne warug julli ak koor ak azaka ak aj màkka ak jàpp ne yàlla niru na lenn wala lenn niru na niru na ko ci lenn euh, sëriñ Sohaybu Mbàkke nee na tere nañu itam oote ak wilaaya te waxoo dëgg moo xam dangay ngay oote na ab yonent nga moo xam da ngay oote na ab xutb nga wala waliyu nga lu mu ci man di doon nga koy oote te yow ma koy oote óor na ne waxoo dëgg sëriñ son ay Mbàkke na loolu day waral ak mujj gu ñaaw booy faatu doo dee mukk ci lislaam kon loolu lu mat a bàyyi xel léegi jamono ji ñiy oote woo ay yonent ak i oote na ay waliyu lañ ak i xutbaani yi dafa bari lool te ñi ci ñoom ñëpp ay fenkat lañu loolu nag lu ma a bàyyi xel la bu dee ku taxaw oote na ab yonent la moom kooku moom la chaque que ne kooku moom ab fenkat la euh, jërul sax weddi da nga koy laaj kenn moo la yónni ndax it loolu lu mat a bàyyi xel la ndax nit mën naa wax ne euh, ab yonent la dañ maa yónni mais ku ko yónni kan la bu dee yàlla sunu borom mi moom jaam yi te yónni woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ko fenn waxoo dëgg ndax kooku moom yónneetul kenn li yónent li mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam na sëkk te doy na kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax nee wala ngay oote sax ak ceex wala kilifteef gum mën a doon te yeewoo ko legi nak loolu jamono bari na ci jamono ji ndax legi serigne si ñi auto ak serigne ak ak cheikh ñu upp sax talibé yi léegi ñëpp bëgg a dooni sëriñ ak cheikh seex ñu talibé yi ay serigne lañ ak cheikh seex jànkatu xasida yi duruskat yi waxtaankat yi njabarkat yi nga xamne ay ñaan kat lañuy doon jaar ci lasrar ñom ñepp legi ay serigne lañ ko ci wax mu ne gént na serigne Tuubaa wala serigne ma ba khassida yi ma di fenn di rek di nax nit ñi di oote woo te la ngay oote dara du ci dëgg te la ngay oote yeyoo ko yow xam kenn xamul sa benn maam bu taxawal liggéeyal diine te defaloo dara diine ba pare yow taxaw ne ah, ab seex nga wala ab sëriñ nga te loolu lu mat a bàyyi xel la nit boo bëggee oote ci diine da ngay tegu ci yoon te nit ku ñëw nga teg ko ci yoon teg ko ci sax mustaqiim kon sëriñ Suhaybu bu Mbàkke nee na ngay oote ak wilaaya wala ngay oote ak ceex mbaa kilifteef te yeyoo ko loolu dana waral mooy faatu sa mujj ñaaw nga xam ne da ngay dee ci lislaam nee na tere nañu tamit joxe wér wérdu jàmbur te digalu la ko tere nañu tamit bari looy lor nit ñi ci jëf wala wax tere nañu tamit xoo jigéen buy xool góor di bànneexu ci moom tere nañu tamit góor buy xool jàmbur bu jigéen wala muy wax ak moom waxi caaxaan wala muy bànneexu ci ay waxam wala ci lu mën di doon tere nañu tamit njaaloo nee góor gu ko def te dencugul soxna ak jigen ju def te amugul borom keur ku ci nek waras na dor temer yar bu ñu leen ko deful fi ci adina faawu des na len ko def ci alakhirah ca kanam bindef yep ñu ñeek ñi ak ñu mujj ñep teewe ko euh, euh, wal iyaazu billah budé denc nak wala muy ku am borom keur yoon ray nako ko reyub wal iyaazu billah terees na itam nan sangara nee ku ci nan as toq lu mu tuti ko nee na kooku wares na koo dóor juróom-ñett fukki yar ci mbooloo bu ñu ko ko defal fii ci àdduna faaw ñu def ko ko ca ñu njëkk ña ak ñu mujj ña ñëpp teewe ko kon war nañu koy moytu bu baax nee nak nag luy mandal mok sàngara ñooyam boo ko naanee te jublu ci am mandi rek ñooyam atte tere nañu itam ak tux ko tere nañu itam fen ak jëw ak diglu ko koy def nee na ñaar yooyu moom muy fen ak jëw Euh, ku ci mës a def benn te tuub ko yaay mujjee tàbbi àjjana waaye nee na boo ko tuubul ba dee nag yaay njëkk a tàbbi sawara kon lu moto bay xela tere nañu tamit euh, rambaaj li jëw di bon bon nee na rambaaj moo ko gën a bon te koy def du tàbbi àjjana sëriñ Chouaïb bu Mbàkke nee na euh, tere nañu rëy ak ngistal ak iñaan ak yéem sa bopp wala ngay naw say jëf ak defe na yaa gën kenn nee na yooyu yëpp ku ci def lenn ay jëfam duñ ko nangu tere nañu itam bañ ab julit ak ŋàññi ko ak xas ko ak reetaan ko rawatina ab waliyu tere nañu itam bépp fo mo xam fo momu am teug la wala fecci wala Riti wala xalam wala lu melne football ak bere ak bépp po mo xam ne mënees na ca am banex nee yoy yooyu yépp ku koy def wala mu diko diglu wala mu diko ko ñom ñepp sawara lañ jëm sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na ko amee tere tere nañu ko amee mbégte mu di ko feeñal ci di fecci wala muy tàcc wala muy sarxule ak xeetu fowukaay yëpp nee na loolu xaram xaraam la nee na ko amee mbégte da ngaa war a wax alhamdulilah te dolli sa farlu ci jaamu yàlla tere nañu tamit ko amee aw naqar di yuuxu ak di xalangu wala lu ni demee nee na ko amee aw naqar da nga wa da nga war a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te nga muñ nee na terees na itam jigéen juy dem kër ña muy fekki ah, ak dëkk ak i dëkkandoom ñooñu daje fa di yëkkati seeni baat ak di soowloo ak di ko xas loolu lu xaraam la mooy jigéen juy dem juy sëyi ña muy fekki ñëw di ko xaxar di ko saaga ak di ko wax lu ñaaw nee na loolu sax bariwut fii nii ci côté yi waaye ci côté dëkk yi la gën a bari nee na loolu lu xaraam la tere nañu itam lekk alal ni nit ci lu dul coobareem ben nga forcer ko wala nga jaay ko sañ-sañ wala nga nax ko bale koo euh, tere nañu itam amel nit bor bañ ko fay ta man ko sëriñ Souhaïbou Mbacké néna nañu tamit nit ki nay watandiko sobe melne di saw di ca tak ta xaro ba lepp genn wala ngay sobe manam wara sangu farata sangu wo lolu bokk na ci li waral mbugulum bamel sëriñ Souhaïbou Mbacké neen tamit tere nañu yéxa julli ci waxtu ak julli ci luddul ak laab neena tere nañu tamit sakku lu neex mi def ta lolou jëlu naqar yalla tere nañu tamit luñ ñutu manam gëstu ayibi nit ñi bayyi sa bopp tere nañu tamit bëgg aduna ak woyofal alaxira tere nañu tamit def luy waral wowuk xol ba bo déggee dëgg do ko nangu te xam ko sëriñ Souhaïbou neena nañu ñak kersa tere nañu itam góor guy tak ab jaaro wala leneen ci wurus wala përëm wala xànjar euh, sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na tere nañu ku boole maanaam ku takk lu ëpp ñeenti soxna nee na góor gu takk lu ëpp ñeenti soxna sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na yoon rey na ko reyub gëtën te bu ko tuubal ba dee sa a la jëm nee na it tere nañu jigéen juy yëkkati baatam wala muy feeñal dara ci aw yaramam lu dul mu nekk fu demee ne duus mooy wanag ngir feneen fu mu mën a nekk malaaka yaa nga fa te malaka mu gis awra dal di dee te jigen leppam awra la lu ab xar kanamam ak ñaari tànkam moo tax képp ko koy def mi ngi ray malaka yi rek tres na itam jigen juy feñal dara ah, ci ay takayam wala muy sol yére yu yarax yo xam ko ko xol man ca gise aw yaramam wala yére yu seere yu dang ci mom wala muy def bop neen wala muy xeeñoo laj ko lañ diko charmé gor ñi wala mu yor takay yu yëngatu ñene yoy yooyu lu mu def moog yaramu neen ñoyam ci mom daganul ci kenn genn góor mu gis ko wala mu xeeñ ko wala mu dégg ko kudul boroom këram wala mbokkam mu mu aramanteel waaye kudul ñoom ñaar ñi def ci lenn lu xaraam la ci ñoom ñaar ñépp looloo tax nee na yoon tere góor guy dem ci kër jigéen wala jigéen guy dem ci kër góor nee na loolu lu xaraam la tere nañu itam jigéen muy soppi bindu bi yàlla lu demee na jamu ci aw tuñam wala ñaasu ci ab jëwam wala ci ay lexam wala muy def ci aw yaramam lu koy soppi mel na lu koy xeesal wala muy jokku ci kawaram loo xam ne ku ko gis defe na ca la bokk te bokku ca sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na tere nañu lool ñaari way dencen ne ñaar ñuy sëy kenn ka di la muy seq ak moroomam bu wéetee loolu la nee na tere nañu itam jigéen ju génn néegu borom këram ci lu dul ndigalu borom këram lu mu gàtt lu mu gàtt gàtt bu ko defee yàlla dana ko rëbbu lépp lu mu romb dana ko rëbbu asamaan si ak suuf si ak malaaki yi ak jinni yi ñi ngi koy te di ko móolu di ko ñaanal naan ko yàlla la yàlla sori yërmandeem ba keroog muy dellu tere nañu itam kuy dem ci ab njabarkat di fa seetlu wala muy laaj yo yu ñëwagul muy yu faddu ci kuy gisaane wala kuy tëni wala kuy def ay xaaw mooy ay fas wala kuy samp ay béjjën ak biteel yu mel ne yuy wax ñu di ca tegtaloo oh, yu yu yu di ci ñu di ca tegtaloo di wax yu ñëwagul neena na ku ko def bo gëmee la la wax ab yéefar nga boko gëmul da nga am ñeen fukki fan yo xamne ñeen fukki bis yo xamne lo jëf yalla du ko ko gëmee nak ab yéefar nga serigne soxay mbàkki neen tere nañ itam ku yéene nit mu faatu ñeene nit mu faatu lol tere nañ ko baxul tere nañ itam ku dugg ci kër nit wala negam te nuyoowul bañ na ko bisimilah tere ñu itam dem ci kër nit wala néegam di fa ñutu di fa gëstu wala muy seet ak a yër denc borom kër ga nee na tere nañu itam kuy nuyoog nit di diri sab jë euh, ci loxoom ngir loolu mën naa sabab jàngoro bu fekkee ki ngay nuyu da ngaa yaakaar ne manes naa barkeelu ci moom kon mën ngaa mucc mën ngaa mucc loxoom nga fóon ko ci sa gimiñ ba sa bakkan tamiñ ko tooyal bu dee koo xam ne boo ko ko defalul mu mer nag defal ko ko dafay daal di xaraam nee na manees naa saafonte rek ku ne dem sopp nañu itam ñaar ñuy saafonte ku ne julli ci yonent bi ñaanal moroomam door a locc rocc loxoom nee loolu dana tax ñu jéggaleen seen i bakkaar bala ñoo rocc seen loxo ah, nee na sujjóot nag mooy nga samp sa ñaari cati baaraam yi day tànk fi suuf ak sa ñaari bëti woom sa tenq ab ah, ah, ak sa jë fi suuf mel ne kuy julli loolu mooy sujjóot bi nga xam ne moom defal ko ku dul yàlla dafa xaraam lu mel ne teg sab ci loxoom nit nag wala nga fóon loxoom rek loolu loolu moom du ab sujjóot waaye nee na ku ko mën a bàyyi te saafonte rek euh, doy na comme nii mu la ko waxee nee na teres na itam ngay effacé di far lu bokk ci alxuraan ci say tiflit ci say lor teres na itam ngay nataal lu am ruux ngay desin lu am ruux loolu tere nañ ko ku ko def bu bis finc ba des na la sant nga utal ko ak ruux te su boobaa doo ko man tere nañu itam wékk lu ñu dessin ci ab neek bu lu am tak kender, mel lu ñu yett wala lu ñu tabax lool mu dafa haram bu lu mel lu ñu nataal ci aw kayit lu ñu fato su boba mom dañ koy sib rek nga tek ko ci ab néeg tere tam itam euh, lak luy dund ci sawara néna na tere nañu tamit dajé di waxtaan waxtaan wo xamné jëmul ci yàlla tere nañu itam xol awray jambur tere nañu itam dugg ci ta te amee cangaayul janaba wara sangu farata te sangu ko di dugg ci jàkka tere na itam ku gént gént guy waral mu sangu sangu farata sangoowul ba pare dem naan day sëy soxnaam loolu nee tere nañ ko boo géntee gént guy waral nga sangu balaa ngay sëy ak soxna demal nga sangu ba pare nga soog a ñëw sëy ak sa soxna loolu nag xikma bi ci nekk bari na lool. tere nañ itam ku tabbi ci néeg bu lëndëm te yorul ab niitukaay ab lamp tere nañu itam wax ci diggante noddu ak julli tere nañu itam fo ci biir julli. tere nañu itam tere nañu itam ñaax ab sarax maanaam jox nit ab sarax ba pare di ko ci xas tere nañu itam sangu wala booloo ci ak déneer foo xam ne dara tiimu la ak nelaw lu jiitu nelaw avant gée ak waxtaanu àdduna gannaawam ak nelaw yow képp ci ab néeg ak di tifli jublu penku wala ngay tifli sa wetu euh, ndeyjoor mooy sa côté droit ak ko amee jana ba war a sangu farata ngay watu wala ngay dagg say we wala ngay lettu wala ngay def dara loo xam ne sa kawar mën naa dagg dañoo bëgg balaa ngay def yii nii nga dem sangu farat ba pare ak ku nara a weeru tabaski wa teru ba noppi ngay dagg say we wala ngay watu te rendéegoo da ngaa war a xaar ba rend sam xar ba pare booy watu mbaa ngay dagg sawe nga soog ko def ak jullee ku faatu ci digg ay bàmmeel ak toog ci bàmmeel loolu dañ koy tere toog ci bàmmeel baaxul ak joxalante jaasi ju ñu boccu wala saatu wala goboro wala aw semiñ wala lépp loo xam ne mën naa lor nit moo xam paakalaw yu mel noonu boo koy jox nit danga koy teg fi suuf mu jël ko waaye bul ko ko jox ni direct loolu baaxul nee na tere nañ saw ci am pax wala fu jàkkaarloog jàkka ak naan ci ndab di ca noyyi ak taxaw di saw ak taxaw di naan ak defeenu di lekk ak nekk diggante naaj ak kër ak nay woddoo yëreb sooy ak doxey wenn dàll ak di fob jël ab jaaraw diko def sa dig euh ak ngay jéggat ci bu yilima iliman di khutba ajuma ak moccu ci lu turu yalla wala euh, tak ay ciowri ak ay galen ak naan ndox muñu tangal ci jant bi wala nga koy sango ak lambu bop jambour te yeguko ko wala bu ko yegge mu naqar ko ak iliman ju noddu wala muy taxaw futi tiim yooyu yep ne tere nañ ko ak naan ci gémmiñu satala wala gut wala barada wala ci aw wala ngay wal aw ñam di af aw ñam lolu tere nañ ko ak naan ci kasu wurus wala khalis wala ndab lu ko doon ak jaay ci jàkka ak difa jënd ak difa yene lu reer ak sol lu ñu lay ragne ci mbolo ben mu gatt bu ëpp wala mu euh, gudd bu ëpp wala mu ñaaw dañoo bëgg dal ngay sol lu digg doomu ak julli ci kaw ak julli ci digg ci ci digg bëccëg ndareelu jant bi dafa jàngar bi ko maanaam joo jullee fajar ba pare ba ba jant bi fenk bu fa naafila ak wax lu ñaaw ci ku faatu ak njëkk a umra ci aj ak ñam wu tàng nga koy lekk ak rey xorondom wala mbottu wala sànqaleñ wala yamb wala njugub wala janaab muy mel ne xeetu muus waaye waxuñu lu mel ne melentaan ak ngay jaay nit xaj boo xam ne kenn tàggatu ko kon yii la ñu andi loon jëlee ko ci téere téereb sëriñ Souhaïbou Mbacké ibnu xaadimu rasul téereem bi tudd quratul ayni euh, ñi jële leen fa woon buntu bi nii andi leen ko danañ ñëw andiwaat yeneen buntu ngir ne téere bi moo ñu gën a jege ndax lépp ci olof la nekk te ñi déggul arab mënuñoo jàng yéen téere yi bu ñu diire yi lu bari ci seeni farata danañ ko xam yal nañu yàlla fayal yi bu Mbacké te jéggal ñu jéggal jullit yépp te taas ñu ci barkeem wàcce leeram ak yërmandeem ci moom ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu suñu mbokki jullit yëpp di nuyu sëriñ kilifa ak jataay bi euh, kilifa euh, kër gi euh, di nuyu waa Dakar at yëpp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo sëriñ Sala Mbay mu tegal ñu ko ci loxo personel bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di ñaanal sénégalais yëpp ñu am jàmm di ñaanal jullit yëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa